Assalamualaikum wa rahmatullah taala wa barakatuh sama mbokki patriote yi ma ngi len di ziara kuma ma gis rek xamna ne mom wax deug yalla euh yaakar na na nelaw néew na fi euh franchement eh, ñoo ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp nak di dolle ñaax def suñu waref moy lan moy ñaax di ñaax guddii di ñaax beccëk di ñaax di ñaax di ñaax ba kérok am luñu bëgg kon tay du bésub euh, tok sa kër tay du bésub setan, waaw bu fekkente ne wolu ngeen president Ousmane Sonko bu fekkente ne bëgg ngeen ko jox réew mi c'est aujourd'hui bu fekkente ne seen ab taxawaay bëgg ngeen mucc ayib c'est aujourd'hui bu fekkente ne tay nar ngeen war ngeen a delloo njukkal Ousmane Sonko c'est aujourd'hui bu fekkee ne tey war ngeen a défendre seen leader pour ëllëg c'est aujourd'hui kon li ma leen di dénk mooy soyez discret soyez discret li ngeen di def jarul publier ci réseau sociaux yi li ngeen di def jarul véhiculer ba seeni ennemi wala seeni adversaire di xam ci lu ngeen nekk dañ koy reproché les ay wax rek wax rek wax rek nañu wañu wax ji bañuy position gis ngeen len demb ni ngeen di solo lañ solo dugg ci seen biir di len nap kenn c'est parce que suñu stratégie mo baaxul on on doit communiquer moins ku ci nekk na nga ànd ak koo xam ne xam nga ko ku ci nekk ba nga na nga ak xam nga ko moytu les étrangers ñi nga xam ne dañuy ñëw rek sol mbubbu Pastef nga foog ay ay patriote lañ or kawa bor boor la soit ñu ay nervi wala euh, ñuy euh, ay renseignements généraux dugg ci seen biir napp leen euh, bu ko defee xeex bi day am lu nañu def attention ci li que li ñuy véhiculer devons def attention ci suñu doxalin gars vigilance taille, dara du yomb waaw dara warta yomb c'est votre avenir qui est en jeu vous les jeunes Je ba ci kanam incha vidéo ñaax la